salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñépp di leen ziyaar te di leen màggal di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi di jaajëfal soxna yi jël kàddu ndax képp ku leen gis xam ni yemuñu rekk ci doon soxna yemuñu rekk ci doon jigéen waaye ay lingeer lañu ay jàmbaar lañu di njëkkee samay kàddu ci sama grande sœur bi fim ko fim ko njëkkee rekk mooy dëgg la ñu ngi fi alhamdulilah waaye am na yeneeni soxna yeneeni lingeer yoo xam ne ñu ngi bay seen waar ca fa ñu nekk lu ni mel mënuñu koo wax sans pour autant wax ci Fatima Zahra wage bi nekk Tamba te tey caabi féete ko ginnaaw te ñu lal ko ci politiku kese muy lingeer sañu ñoo wax te duñu tudd maman Ami Dia kooku noonu di yaay ja nga xam ne maanaam képp ku yegsi ci kaso gi rek moom moo lay dalal tax na ba képp ku génn di expliquer la nga daj kàddu yi ngay njëkk yëkkati mooy maman ami Dia moo ma dalal sañu ñoo waxte duñu tudd Falla mi nga xam ne jàmbaar la ca fa mu ne Yacine mi doon toppatoo détenu yi madame bi tey mi nga xam ne tamit sama yaay la bokk mag magi Pastef yaayu Serigne Saliou mi nga xam ne récemment jàpp nañ ko ak yeneen lingeer yi fa nekk ma leen di ñaan ñu tàccul leen bu baax a baax a baax ndax yellool nañ ko mérité nañ ko liggéey nañu lu tax ñu war leen a tappal gradu Linguère ndax tey laataa ñuy dugg kaso ku ci mel ni maman Ami Dia man xaw ma ko woon personnellement waaye ci ba mu duggee kaso ci lañu xam nan la mel ci la xamee ni ndekke c'est une âme généreuse ni ñu mel nu ko raw la mel kon kooku jar naa jaajëfal jar naa delloo njukkal nañ leen tàccuwaat bu baax a baax ma ñëwaat ci kan mooy Linguère damay indi benn anecdote bu ndaw parce que jamono ji ku am alal ñu ne la lingeer nga su la neexee def lu la neex su la neexee buum di buum mi su la neexee baax su la neexee bon waaye ku ci nekk dañ lay tappal gradu lingeer ndax dañ naan képp koo xam ne mën nga yeyoo nga ko waaye je tenais à préciser ni kan mooy lingeer mooy jàmbaar bi nga xam ne dafa fekk fu dara newul mu indi fa dara ku mel ni soxnaay ancien président bu États-Unis Barack Obama ci benn anecdote bu ndaw dafa àndoon ak boroom këram ci restaurant ba mu fa demee serveur bi ñëw di ko servir ne ko diw moomoom restaurant bi ndeke diw moomu euh, jotoon na nekk ak soxna soosu mooy temps bi ñu nekkee collège ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi doon dund mbëggeel bi ñu woowee ki moom restaurant bi ba mu agsi ñu présenté wu def présentation bi mu demee Barack Obama dafa ne soxnaam Ah, kon su ma la takkutoon gën naa ni soxna wu kii nii moom restaurant bi ngay doon c'est-à-dire kon jamono ji yow yaay moom restaurant bi su ma la gisutoon su ma la takkutoon alhamdulilah soxna si ne ko déedéet soo ma takkutoon kon ba tey man maay doon première daam ndax kii nii moom restaurant bi dinaa def dinaa liggéey dinaa jaayante ba mu dooni président de la république loolu muy firndeel ni président boobu mu doon dëgg la mayu yàlla la moo ko liggéey moo ko jaayante waaye soxnaam liggéey na lu tax mu doon président ba keneen ku mu nekkaloon su doonoon gardien itam dina ko jàppale ba mu dooni président koo koy lingeer te yéen ñi ñëpp fi toog ay lingeer ngeen ndax kenn joxu leen ngir ngeen ñëw waaye da ngeen dégg appel bi soxna yi woote ngeen ne ci laa bokk war naa cee mën a jàpp looloo waral tey seen teewaay kon ñun ñëpp ay lingeer lañu toogaay gi ñu toog ëppale leen ci cër yéen ñëpp yellool ngeen ko sànq mbenn mi ngi koy wax ci ay kàdduwam nee na ñun ñëpp ñoo ci bokk maase mooy képp koo xam ni am na jéego goo ci mën a dox ngir euh, initiative bii ñu am mu gën a jëm kanam en tout cas ñu ngi la ciy accueillir sañu ñu leen ci accueillir parce que jiituwuñu leen ci ñun ñëpp ci bokk yem waaye à cœur ouvert en tout cas lañ koy nangoo kon ñun ñëpp ñoo bokk panel bi panel bi dafa di panel boo xam ne dinañu jàppale ngir lu ñu bëgg ci réew mi ñu am ko ndax du doon lu ñuy ñaan comme ni ma koy waxee duñ ko ñaan ci njëkk ndax nguur gi fi ne ñun ñoo leen fi teg ñun ñoo ko ñàkkante ji woon ci terrain bi ñun ñoo nekkoon ci bureau de vote yi ñun ñoo doon sensibiliser pour ñoom ñu mën a àgg ci nguur gi ñu wëlbatikuwaat yëkkati lu ñu am kay jaay jën mu dajale ci li mu am ci bénéfice investi keneen ak keneen dajale li mu am jox nguur gi ne ko doxalal kon kooku noonu nga dénk alal ne ko doxalal waroo wëlbatikuwaat di daw ci ginnaawam ne ko ngir yàlla defal ma lii ndax yow yaa ko dénk yaa ko ne doxalal bu ñu nangu tout le temps ñu naan ñu pour pourtant defal naa leen lii mënoon naa ko bañ a def defal naa leen ko defaluñ ñu ko saraxuñ ñu ko mayuñ ñu ko ñun ñoo yëkkati alal dénk leen ne leen doxal leen kon lépp lu ñu def dafa war su suñu toogoon jaayante ko def ko itam dafa war parce que ñun ñoo leen jox moyen yu tax ñu def leen tappal leen grade buy tax ñu ne kii ñii ñoo war a def kon boog loolu daf ñoo yellool buñ leen ñaan bu ñu nekk ci dynamique boobu parce que soo duggee ci àll bi tul le temps sooy wax ak nit ñi dañ la naan pourtant tabaxal nañ ñu lii kon moom la ñuy fal pourtant defal nañu lii def googu yelleef la dañ koo war a def ndax ñun ñoo leen jox alal bi tax ñu war koo def kon déjà loolu foog ñu dugal ko ci bopp soxna yépp ci bopp lingeer yépp mooy li ñuy def nii muy dañuy kaas suñuy droit dañuy waxtaan ci nan la réew wala dox war a doxee kon ñun nii ñëpp am nañ ci wàll. santé bi dafa war a demee neneen te ñun ñoo ciy gën a sonn ndax tey ku feebar soo yuuxu wu yaay ngay wax yaay booy yóbbu ma doone bàyyi yóbbu ma ndax yaay mooy jur sensibilité boobu am na ko ba jaral na ko su doomam feebaree suñ ko diggoon milliard la mu daj ca taabal ba la mu daj ca nàmpal ba la mu daj ci doomam dina ko jaral mu dem yóbbu ji ko hôpital kon hôpitaux yii ñuy dem kuy waaja dee sa yaaya la yóbbu ñun ñoo ciy sonn ñun ñooy ami doom mais ñun ñooy yóbbu ji suñuy doom kon cadre boobu dafa war a doon cadre boo xam ne euh, côté infrastructure yi ak ña nga xam ne ñoom ñoo fay nekk dafa war a doon donnant donnant mooy lan déjà que man dama gis ni normalement soins yi dafa war a gratuit su mënul nekk as tuut nga war a joxe te même su dee joxe woo as googu dañ la war a faj ba noppi ñu doog a lijjante ndax am nga wala amoo parce que du ki am kese moo fal waaye ñëpp a bokk fal Sénégal benn bopp la bu ñu nangu ni ci biir hôpitaux yi la ñuy xaajatlee kon système de santé bi dafa war a dox système éducatif bi dafa war a dox te su ma nee système éducatif bi ouverture mi ngi jot war nañu mën a am ay subvention yoo xam ne suñu xel du tëju ci inscription cent mille francs cinquante mille francs jamono ji kenn talatul dara ndax ouverture mi ngi jot yaa ngi xalaat soo joxee inscription mi ngi desaat yére ya nga war a jëndal gone yi mi ngi desaat fourniture bi war a ñëw te des fois fourniture yi mooy gën a chair mooy gën a cher inscription yi képp kuy yaay xam nga ci dara jamono ji looloo tëj suñu bopp waaye système éducatif bi war nañ koo rénover de telle sorte que suñu xel dina dal suñu doom yi dinañ jàgg ci cadre bu anam bu wóor te tamit école yi du ñu am inondation parce que école yu bari jamono ji mi ngi fees dell ak ndox fees dell ak ñax ñépp a ngi téye seen doom ne du ñu jàngi en octobre kon fokk ñu tegal ñu cadre boo xam ne dina tax ba système éducatif bi na mu war doxee mu doxee ko et surtout étudiants yi ñu dellu jàngi ñu bañ a perdre ay deux ans trois ans nit ñi xam nañ ci dara ñu ñëwaat ci système justice bi du suñu thème mooy paix ak justice day aller de pair c'est-à-dire euh, paix mënul am fu justice amul parce que tey loi kum kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci dëkk bi te ñépp xam ko dafa war a dakk mooy lan nit ku deful dara ñu jàpp tëj walla ñu jàpp nit ba noppi di lijjante lan lañu war a mën a teg ci ndoddam walla nit ka nga xam ne dafa bëggoon a dimbale njabootam dëgg la sàcc lewut sàcc du yoon waaye bëgg dimbale njabootam mu jaral ko mu romb ab ab ab saaku ceeb jël ko yóbbul ko waa këram nga jàpp ko tëj ko nangu naa waaye jugé ko daanam su dee cinq mois la mu tëdd ko su dee un an la mu tëdd ko waaye doo ko jàpp tëj ba noppi mu nekk ci kaso yi nekk ci condition gu métti nga téye ko fa vingt ans soo ko jugé nga ne ko dellul ndax benn at laa la waroon tëj kooku delluwaat ci njabootam day am problème mu sax inséré waat ndax am na jamono joo xam ne soo waxee waxu kaso gàcce la woon jamono jooju ñooñu ñu ngi dund lu métti te nag kaso yi comme ni ma koy waxee ñun ñoo fa fees dell ñun yaay yi ñun rakk yi ñun mag yi ba su méttee ñun la ñooy yóbbu ji añ ñooy seeti ji détenu yi kon nañ ñu dimbale ba système boobu noonu ñu mën koo teg ci yoon mooy justice na am ka nga xam ne dafa sàcc milliard ka nga xam ne dañ ko jàppee ci faux billet ka nga xam ne dafa violé te bokk ci nguur gi wala jege ñu bokk ci nguur gi na yoon dal seen kaw ña nga xam ne ñu ngi naan tey ay waxu milliards mille milliards Covid fan lañ ko dugal ku ci nekk yoon na def liggéeyam ba sénégalais bi ak nu mu muntu toll ak ku mu muntu doon dina sentir ni man ci société bii laa bokk am naa fi kàddu te nag su ma defee lu jaaduwul yoon dina ma juger nu mu waree waaye deux poids deux mesures mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey mu dakk ci réew mi ndax loolu mooy waral soulèvement populaire looloo tax jeunes yi jug ne dañuy xeex ngir justice ndax injustice moo am looloo tax nit ñi di jóge ci réew bi di gàddaay di jéggaani dem beneen réew di ko defee ci anam yu métti ndax seen bakkan xaj na fa mooy immigration clandestine bi nga doon wax léegi. injustice boobu mooy waral limite ju xew xosanto mooy population boo xam ne dañoo ñëw exploiter seen ressources yu ñu amoon ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a jariñu ndax dañoo nekk ci suuf soo xam ne am na or am na zircon ñu waroon cee jariñu ñu ne leen déedéet doo leen fi liggéey. 500 000 francs bi ngeen doon am dootoo leen ko amati waaye dañ koy jox ñañu neex politiciens ñañu neex su ko defee ñoom ñu liggéey mën a dundal seen njaboot yow nga tëdd ci oor te mënoo dundal sa njaboot. yaay yi sonn nañu soxna yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu lingeer yi sonn nañu waaye nag bu ñu nangooti doon ay spectatrice mooy bu ñu toog di seetaan naan yàlla baax na yàlla baax na dëgg la waaye ndimbal na cay fekk loxoy boroom nañu doon ay actrices de développement ay acteur de développement nañu doon ñi nga xam ne bu ëllëgee dinañ ne ñii kat soxna yi fi nekkoon jàmbaar nañu ni jigéenu talaatay ndeer bay nañu seen waar bu ñu nangu histoire bi laa tey Ndeer kese moom ko bu ñu nangu yaasin buubu kese moom ko bu ñu nangu Aline Sitoé jaata kese moom ko même suñu tuddul yenn ci ay tur nañu ne jamono boobu noonu lii xewoon ci dëkk bi jigéen ña fa nekkoon ay jàmbaar lañu te gëm naa ni ay jàmbaar lañu nañu mànkoo di xàccandoo di dóorandoo gëm naa ni ndam rek la ñuy am maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi jaa ngeen